xamante ni moo nekk di xew ci réew mi rawate na jaay doole bi nga xamante ni ñoo ngi koy jaay doole parti bii di Pastef ak ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko ci loolu ñu seetlu ci ay arrestation yoo xamante ni kenn mënu koo wàññi yu ci mujj ñu gën ci ràññee bu basiru Diomaye Faye nga xam ni moom mooy la secretaire général du parti Pastef sénégalais yëpp teg seen bët ci anam yi nga xamante ni noonu lañ ko tegee loxo salfaañe ay axam ak ay yelleefam loolu ñoo ngi koy mettitlu bu baax a baax a baax a baax a baax ndax gis nañ ni ay 22 heures la dem fekk ko fa nga fële nga xamante ni mooy bërëbu liggéeyukaayam convoqué ko forcé ko dugal ko ci oto manu militaire yi yóbbu ko jàpp ko tëj ko ci kaso bi te dara waralu ko lu dul li mu joxe xalaatam ci ni suñu justice di doxee ci benn texte boo xamante ni moom bind ko te loolu bépp sénégalais bépp sympathisant bépp patriote partagé nga ko ci sa page man mii partagé naa ko ci sama page te li nga xamante ni moom la secretaire général Bassirou Diomaye fay wax ba ñu jël ko dugal ko ci kaso bi nous les coordonnateurs nu nous l'assumons ndax nag ci réew mi lañu ñu bokk mënuñu bépp bërëbu liggéeykaay ku fa ña fa nekk di liggéey ñu leen di critiquer journalistes yi saa yu ñu xëyee yëy yàbbi ci ñoom yëy yàbbi ci enseignants yi ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk suñu justice bu ñu defee loo xamante ni du yoon kenn amul droit wax ci loolu du dëgg du yoon te lu war a dakk la naam suñu justice am na ay magistrats yoo xamante ni dañuy def seen liggéey ni mu waree comme ni nit ñi di defee seen liggéey ci yeneen secteurs yi mais li Bassirou wax loolu sénégalais yëpp ci teg seen bët. te loolu moo nekk lu am seeni pexe newul lu dul xool nu ñu jëlee Ousmane Sonko denc ko ci kaso bi wala empêcher ko mu nekk candidat aux prochaines joutes électorales te loolu du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg bu ñu jugee ci loolu gis nañ ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Sow di suñu coordinateur fële ci Kédougou moom it boobu ba léegi ñoo ngi ko jàpp dugal ko ci kaso bi. jàpp plus de trois cent cinquante cinq otages ñëpp bokk ci Pastef ñi di ay responsable ñi di ay sympathisants département boo dugg rek am na nu ñu fa te man fa ma jógee muy Tëngéej ki ñu naan Abdou Karim Bey di chargé de communication au niveau du conseil départemental de Rufisque ak Pape Baba Mbow di première di deuxième adjoint au maire au niveau de Rufisque Est Fadilou Keita baabakar njaay di vice-président GPS ak ay ñeneen ak ñeneen bu ñu leen lim tey ji duñ fi jóge ñooñu ñëpp ñu jàppaleen dugal leen ci kaso bi ci ay caaxaan ñii ñu takkal leen ay bracelet électronique ku ci mel ni euh, Waly Bodian ak El njaay ak ñeneen ak ñeneen loolu lañ leen bëgg a xamal ni du wéy ñun bu dee xoxatal kenn mënu noo xoxatal Macky Sall moomu réew mi képp ku bokk ci moom moomu réew mi waa Benno Bokk Yaakaar moomuñu réew mi réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk dañ koo jël teg ko ci ay loxoom tey bu ñu amee loo xamante ni moo ñu tënk ñun ñëpp muy la constitution ci article vingt-sept am na nul ne peut faire plus de deux mandats loolu moom taxul ñuy wax. man taxuma ñuy wax Ousmane ko taxul ñu ñuy wax peuple sénégalais moo tax ñuy wax kon loolu moom mooy ko moom mooy le seul président bi nga xamante ni constitution bi da ko écarté d'office waruta bokk pexeem yëpp nag xam nañ ko sénégalais yi xam nañ ko képp ku bokk ci géew politique bi xam nga ko mooy bëgg naa bokk de un bëgg na empêcher ki nga xamante ni tey mooy son principal opposant muy le président son ko di yaakaaru mag ñi yaakaaru ndaw ñi yaakaaru jigéen ñi di yaakaaru Afrique kooku la ni tey du bokk ci ay élection pexeem yépp ci loolu la ko lal moo tax mu créé ñaari dossier fantoche yu sénégalais yi ñëpp xam ni loolu ay caaxaan la ñu ngi leen di wax ni nag ñun loolu duñu ko seetaan tey duñu ko seetaan ëllëg ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk il faut que jàpp bi nga xamante ni ñoo ngi koy wéy di jàpp ay ndawi Pastef mu dakk ndax kenn mënuñu empêcher ñu dérouler suñuy activité politique bërki démboo Njaay ak démb gis ngeen li nga xamante ni moo xew tey ba Njaay muy wéye la nemmeeku tuuram bi nga xamante ni képp koo xamante ni samp nga ndënd pour politique am nga droit dem gisanteeg say ñoñ lan moo tax président de la république Macky Sall bu waree jug seeti ay ñoñam ñu bàyyi ko mu def ko ci jàmm bépp leader politique bu fi nekk chaque jour nga daw ay kilomètres dem saafonteeg say ñoñ ASP sax du la topp entre guillemets waaye ñun bu ñu nee dañuy jóg rek ñu mobiliser police mobiliser gendarmerie topp ñu bu doon ca la ñuy yem ñu ne waaw waaye dañ ñuy ba bu ñuy dugg ci lieu de culte yi jumaa yi ñu ñuy gazé di fa taal ay lacrymogène ngeen defa ni loolu dëgg la loolu du dëgg du yoon nit ki chaque jour ñu dem barricade këram tëj njabootam tëj ay soxnaam tëj ay doomam ne leen doo leen jàngi ñu ne loolu pays de droit la te benn parti politique rek moo nekk di subir loolu muy le parti Pastef te kat ñu fàttali sénégalais yi ne Pastef dañu ne dañ ko porter plainte ci ñaari dossier waaye ñun nous avons déposé une panoplie de dossiers ci table bi ba léegi ibbiw ñu ci benn bu dee injustice liñ ko subir fii ci Sénégal amul benn parti politique bu ko mës a amul pour mën a def benn rappel kii nga xamante ni mooy suñu lingeer Mariama Sagna ci lendemain meeting fekk nañ ko këram def ko naka sudul noonu rey ko te ba léegi sans suite fekk nañ ñu suñu siège Pastef Yoff saccagé ko ñu déposer plainte sans suite 94 milliards yi sans suite fekk nañu Ousmane Sonko kër waajuram wu jigéen ci élection yi passé ne dañuy jël ay parrainage sans suite bu may lim injustice yi nga xamante ni moom lañ nekk di subir depuis le début kenn mënu koo oññi kenn yooyu ci kenn yàbbiwu ci waaye bu nee loo xamante ni ci ay caaxaan la ñu jël ko teg ko ci ndoddu Pastef ñoom ñëpp jóg ne c'est le moment ñu faagaagal leen dañoo xamul lan moo tax a jóg lan moo taxawal projet Pastef te ci loolu damay reprendre propos yi Bassirou Diomaye fay waxoon mooy projet Pastef ki koy suul di ko tas la maire de sa mère n'est pas encore ne maanaam kooku ka ko war a jur sax juddoogul baye boo ñu jàpp ñëpp tëj 350 otages nañu tijjiwaat prison yi commandé waat ay bracelet électronique mënuñoo tere ñu wéyal suñuy activité politique te li nga xamante ni constitution daf ñu ko may muy droit de résistance dañ koy exercer ba mu mat sëkk parce que yoon moom moo ñu ko may ni mu mayee ku ci nekk ay axam ak ay yelleefam noonu la ñëwee ci constitution bi may nit ñi bis bu ñu bëggee salfaañe say àq ak say yelleef nga résister nous sommes des hommes de paix comme l'a dit le président Ousmane Sonko nitu jàmm la Ousmane nitu jàmm waaye nag ku ñu topp sës la ci miir bi bëgg la def naka sudul noonu da ngay résister xanaa muus sax boo ko dàqee ci néeg bëgg ko euh, euh, bëgg ko sànq bu dawee gauche daw droite bu amul lu mu def daf lay song ñun foofu lañ toll dinañ résister ba keroog yàlla dinu may ndam te incha allah dañuy am ndam Macky na xam ne mënut a def troisième mandat li nga xamante ni moom la ñuy woote jëmale ko ci ay jaloo pour man yooyu du ma ci xuus sax parce que bu la ay naxaate la ndax réew mi li ñu fi waroon wax yëpp wax nañ ko xaatim moo ci des pour que lépp ñu œuvre ko sénégalais yi ñoom ñoo sonn. sénégalais yi ñoom ñoo bëgg la changement ndax à l'heure où nous bi dafa augmenté de 2012 ak léegi ñu ngi ci 14000 milliards maanaam sénégalais bu nekk tey ji bu fekkoon ni 200000 francs ngay fay ci sa ndodd tey ñu ne la 700 plus de mille francs ngay fay emploi bi nga diggoon sénégalais yi kenn gisu ko. autosuffisance bi ngay doon wax alimentaire kenn gisu ko te chaque jour nga wax ñu ay croissance yoo xamante ni kenn mënu koo comprendre c'est parce que la croissance est extravertie mënuñu woy dindool di ñàkk liggéey taux de chômage bi augmenté nit jóg di sénégalais lambda wan un programme politique jox ko sénégalais sénégalais yi épouser programme boobu bëgg ko jàppale pour mu jëm ci ay élection nga ne kooku du bokk ba pare ne sénégalais yi nañu toog ku wax nga jàpp tëj moo tax ma ni dans ce pays la dictature n'est plus rampante elle est maintenant debout li leen tiital nag xam nañ ko ci loolu laay xuus daal di dugg mooy suñu activités yi nga xamante ni ñoo ngi koy wërale wër nomba nga gis ne tey jii wër nomba boobu ñu doon def moo tax tey boo demee ci fi nga xamante ni mooy préfecture yi sénégalais yi ñu ngi def une ruée extraordinaire dem di bindu ci loolu bokk na ci li leen tiital si je ne me trompe sax tey moom mooy dernier délai bi te ba léegi ñu ngi jéem a teg ay gàllankoor ci yenn bërëb yi pour empêcher ni ñi ñu ñu ñu ñu ñu bindu heureusement que les jeunes sont déterminés loolu yëpp dafa am un travail bu ko waral muy le programme Wër Ndombo ñun bu ñoom buñ ko deful ñun ñu def ko suñuy nemmeeku tuur suñuy activité citoyenne suñuy vente de bracelets électroniques o détriment de ces bracelets de de, de nga xam ni suñu première loo jaay nañ lu toll ci cent mille mu tiital leen lool te ba léegi nit ñaa ngi fëgg suñu bunt yi suñu téléphone yi di toj ana bracelet yi ana bracelet yi loolu bokk na leen ci li leen gën a xoxotal di leen wax ni pareeguñu am na ay yeneen loolu yuy ñëw te dinañ ne di wéyale suñu vente réew mi Macky Sall moomu ko encore une fois Ousmane Sonko kenn mënu koo teree nekk candidat nas nañ seenu procès ne la huit nasaat beneen procès ne la loolu àgguñ ci mais ñun li ñu mën a wax sénégalais yi mooy nu restons toujours déterminés fa ñu nekkoon juguñu fa du ñu ay fitna du ñu nit yuy semer la violence ay nitu jàmm lañ waaye yàlla moo ñu ñëkk a ci alxuraan ne ku la bëgg jaay doole war nga mën a résister suñu constitution ñëwaat mayaat ñu loolu ci loolu la ñu tegu parce que nous sommes des sénégalais comme tout le monde.